comme tu l'as dit euh, plutôt tôt euh, dañoo am ben équipe on se contente de ce qu'on a les 1-0 et les 2-0 et, comme je le dis un match nul ak ñoom seen aussi ñu je pense que la trentaine c'est bien de les laisser mais aussi euh, Andy Warning, nga xam dit l'ère de la jeunesse ñooñu ñëw jël nag relève bi ci loxo ñi nga xam ni moo dit suñu soldats yi nga xam ne nekkoon nañ fi. waaw gis nga football. Mhm. yow bu la ni attaquant nga. Mhm parce que on est attaquant rek d'habitude ñun dañuy jaawale. Mhm. pour ñun attaquant rek moy l'attaquant de pointe. mais numéro 10 bi sax attaquant la. Mhm. képp ko xamante rek yaa participer animation offensive bi. Mhm. tu es un attaquant à part du numéro 8 numéro 10 les ailiers ainsi que l'attaquant de pointe. Nous, gis ñun suñu équipe nationale du Sénégal d'habitude on a tendance dans les ailes ñu am fa euh, Sadio Mané Ismaïla Sarr. mais ñu gis un bon moment ben période bo xamanteni mi ngi commencé di feeñ. Mhm. que ñom ñaar bien vrai que Sadio mi ngi duggal mhm. mais dans les 1 contre 1 il n'arrive plus à faire la différence. surtout Ismaïla Sarr. donc lool dafa nek lo xamanteni tamit da fay wañi suñu animation offensive parce que défense bi bu defee dafa def liggéeyam. jox milieu terrain milieu terrain def liggéeyam jox attaquant bi ñu génnee ko si mètre. loolu tamit duñu am ay but donc man dama gis ni il faut que ñu préparer dès à présent suñu attaque. moy lan renouvellement des générations. Mhm. misé sur une nouvelle génération boo xamante ni tey jii da ngay Ismaïla Sarr keroog audace le Pape Thiaw am génnee ko. ko il a eu raison. Mhm. sur tout le monde parce que mhm. ñëpp même le commentateur bi doon wax man maa ngi seetaan ma si D'accord, Sport. da ko wax mu premier changement Ismaïla Sarr la war a parce que il est il est aux abonnés absents. donc nekk ma ñooñu nga xamante ni parce que mënoo mënoo dominer dominer. Mhm. nga am possession de balle 90% bo pour cent dugalul mënoo football loolu la il faut marquer d'abord avant de gagner mais ñu gis ni kat ismaël sall un point un contre un ba match bi jeex teggiwul kenn Sadio Mané un contre un fay muju il est intelligent fay jouer relais une deux ñeu football dem yonam ñu mëna am occasion mais dañuy am problème ismaël euh, Nicolas Jackson match bi moom il était aux abonnés absents mhm. ndax lan ñëpp nee nañ deful match mais gisul bal mhm. amul bal boo mhm. xamante ni de si Nicolas Jackson pour mu laal ball il faut que moom mu débrouiller wu génn ñëw jël balle pour le football donc dañoo manqué animation offensive boo xamante ni équipe équipe bi il faut que tamit attaque bi ñu am ay joueurs dangereux dangereuse su ma l'exemple de Vinicius il de Vinicius dafay jël ball fixer le tegle la mhm. mais on voit de ces joueurs là Ismaël Sarr il a le potentiel il a mhm. cette vitesse mais il ne le fait jamais mhm. parce que dafa nekk benn joueur xam dafa on n'a pas besoin de ces gens de joueurs et on est en Afrique on est en Afrique Afrique le box to box de am da ngay dajeeg ay défenseurs durs. dur ñoo xamante foot local seen championnat local lañ mais ils n'ont aucun complexe envers ces joueurs là lan la dañu am fierté marqué Sadio Mané dañu am fierté marqué Ismaïla Sarr kon yow mi nga xamanteni nak yow yaay Ismaïla Sarr yow yaay attaquant bi war nga am ben image bo xamanteni parce que jamono ji amul ben latéral bu ñeme ki nga xamni mom moy mooy Vinicius amul ñom ñep dañ koy soral dañ koy baye xel kon Ismaïla Sarr ak suñu attaquant yep ñom war nañ am caractère bobu non parce que Sadio Mané instant bi man dama jàpp ni dafa commencé jéxal cycle oui parce que le Sadio Mané de Liverpool gisatuñu ko que ça soit muy en club est-ce que nekkul aussi c'est un peu euh, voilà ñu yóbbu leen yóbbu leen euh, mu ñu dem fa nga xam ne di Arabie Saoudite yaa koy wax sank ismaël Sarr bon c'est vrai xalé sax mën nañ ko jubanti mais mak ken mënu ko jubanti moi je me dis que là c'est bopom il est temps ismaël Sarr ñu koy teg ci banc bi dès le début et ko jël ki nga xam ni modi moo di Habib Diarra il démarrer parce que lui, au moins, il montre le pourquoi il est appelé en tant que euh, voilà, joueur de l'équipe nationale. Mais euh, ñe je pense que amna ko xamni mérite d'être titulaire et l'autre euh, mérite de rester voilà wa xama instant bi bo xolé mhm. chaque équipe da ngay soxla patron mhm. té ñun suñu équipe mën na né amna ñaari patron wala mhm. ba ñett Edouard Mendy Kalidou Koulibaly ak Sadio parce que joueur bu mag lam moo avantage ñukay koy ci terrain moy à mhm. tout moment il peut décanter la situation mhm. té man ko fi wax légui ni ci mhm. samay cadeau Sadio suñu match contre euh, Malawi au retour dans les dernières minutes il a pris ses responsabilités jël coup franc luñ mësul gis Sadio mu duggal ko et on est rentré avec les trois points yo xam mom mo ñu permettre ñu qualifier officiellement euh, ci prochaine CAN Maroc 2025. mais nous gis ni euh, comme ni ngay waxé Ismaïla Sarr. Mhm. man dama japp ni instant bi ni mënatul progresser. Mhm. parce que Ismaïla Sarr je pense def na plus de 5 ans équipe nationale du Sénégal. Ismaïla Sarr mosuñu ko dégg ci Révélation Afrique. mosuñu ko dégg ci Ballon d'Or Afrique. Mhm. Et pourtant Ismaïla Sarr il a un talent énorme la Camara bu ñëwee ba dab leen bañ koy jox ay meilleurs jeunes joueurs africains. ana et pourtant il a un talent il a un potentiel mais mon ak Rafael Leao dafa nek yenn joueurs yo xamanteni ak Ousmane Dembélé mhm. ils sont ñom dañoo am problème constance mhm. dañuy ñëw teg la ñaari match dañuy exceller dañuy mhm. exceller si ñaari match tok un mois yo xamanteni ni leen dégg doo leen gis kon donc football dafa avancer avancer bo xamanteni on a plus besoin de ces genres de joueurs là dañu soxla joueur bo xamanteni toujours prêt lañ ko mëna a surtout mu nekk nak un attaquant parce que attaquant liñu ñu soxla si mom moy il soit décisif soit mm-hmm. muy dougal wala muy def des passes décisives mm-hmm. mais Ismaël Assad jamono ji fait ismaël Sarr deful mm-hmm. passe décisif et pourtant il a un potentiel nek na joueur bo xamanteni mën na fixer dribbler teggi def passe wala mu dougal comme on attend de lui beaucoup de choses mën na nekkaat si équipe nationale lui pendant 3 ba 4 ans mais lenn moo koy mën def moy lan ismaël Sarr mu am constance parce que même en club Ismaël Assad, il n'est pas constant il joue wala il ne joue pas mais parfois day jouer Ismaël Assad, day ne ci terrain bi do ko gis parce que Crystal Palace ñomit né nekk nekkuñu exactement. des formes mm-hmm. mais Ismaïla Sarr tamit nekkul le instant bi dans le meilleur de sa forme mm-hmm. exactement euh, exactement en tout cas euh, xam nañ ismaël euh, Ismaïla Sarr il peine c'est sincèrement montré quelque chose yoo xam ni mais en mm-hmm. parlant tout à l'heure de ballon de ballon d'or africain on note que il y a pas de Sénégal il y a Guirassy Lookman à et mhm. euh, Akimi. Donc, et pour rappel aussi, Girassi, euh, Guinée, mhm. qui ne va pas participer à la Coupe d'Afrique des Nations parce que battue par la Tanzanie. Lolé aussi, je pense que surprise, vous. <laughs> Waouh, man, mom, man mom, mhm. bon, je suis un peu déçu. parce que Yakarna, a une victoire qui passé contre euh, ñi nga xam ne RDC Congo. le Congo resté aussi si série de bons ni. amul gëj am défaite RDC Congo. c'est si dynamique bu baax donc nek pays si si poule man gisuma woon sax Guinée gagné ko. Mhm. mais ñu gis Guinée euh, poussé poussé poussé ba dernière mhm. minute euh, sur une offrande de Isiaga Silla qui mhm. Guirassy fait encore sa spéciale dougal mom, mon nek jamono ji l'africain le plus constant mom ak Ademola Lookman. Lookman oui donc ñu gis euh, Guinée. Euh, def euh, remontada parce que premier tour Guinée dafa amone problème. Mhm. tek les deux défaites. nekk mhm. situation yi nous ñep ni mhm. Guinée jeex ñu commence def remonter. enchaîner les victoires Girassi chaque match bu dugul dina tripler Guinée commence à garder espoir. bon mu le match décisif. mais man dama japp ni euh, victoire contre qui a xamni mon moy la semaine passée c'est une victoire contre tout RD Congo. RD Congo manque de concentration bi ñew ñom loolu lañ jàppee woon seen final. Mhm. té ils ont joué leur final. parce que Guinée bi match bi jeexee. Mhm. dama gis euh, comme si que. Mhm. ils sont qualifiés. jubilé fait def lu ne. yëngël stade bi fecc content mais ils avaient oublié que ni match bob c'était pas le match euh, le plus décisif ndekete match bob c'était euh, le match le demi la demi finale. finale bi moo nekkoon tey. contre. Tanzanie Tanzanie ou Botswana je pense que c'est Tanzanie Ouais. Mhm. Légit. nekk match bo xamante tay, mhm. euh, c'était un match décisif mhm. une victoire impérative mo le mun yobou Maroc parce que c'est la dernière journée kon tay, mais euh, li nga xamni mom moy nek nekk nekk loo défavorable na signaux. ñom moy c'était un match à l'extérieur Nous ñoo Ouais. mais Guinée ñu gis ni tay dañ leen un but à zéro le peut-être le futur ballon d'or ne va pas participer au prochain

commencé manqué rendez-vous parce que nek na lo xamante ni tamit yaakaar naa surtout ñun suñu voisins yi Guinée muy Gambie muy euh, Mauritanie kenn demu si kan donc nek na loo xamante ni buggee wuñ ko noonu mais football la di encourager Guinée, di di leen parce que ils ont euh, yaakaar naa début bi c'était difficile mais ils ont fait un remontada extraordinaire malgré que nag euh, fii la mënoon yem l'aventure s'est arrêtée aujourd'hui di leen wax rek ñu defarwaat y a la coupe du monde qui se profile à mhm. l'horizon mhm. kon dañuy defarwaat rek c'est le mhm. football exactement euh, Bataille tey ñuy xaarandi li nga xam modi 11 euh, de départ bu qui euh, la dit Pape Thiaw entre temps nous daal di wax ci daanaka dañoo jógee en fële ca Côte d'Ivoire mais fi ñu jëm xam nga en Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire beaucoup ci li nga xam ne nii favoris. favori mais la match beaucoup, c'était vers les fins quoi mais dañoo dañuy dem en fi nga xam ne modi au Maroc Maroc étant donné que mon moo favori numéro un n'y a pas de débat. au mhm. euh, Sénégal di euh, montré benn euh, visage de boo xam je suis désolé mais l'olé face à ki nga xam ne Maroc ils vont nous piétiner. Mhm. lan la ñu war a faire a améliorer watko ko pour préparer la CAN 2025 au Maroc. waaw mhm. Ndaat. gis nañ ni Sénégal. nek na équipe bo xamante ni. Euh, yaakaar naa léegi ñun ni le public mis mhm. nañ mhm. gagné en difficulté te ñi ngi jëm ci compétition bo xamanteni mhm. niveau équipe bi dafa yéegaat parce que euh, bo xolé équipe yu ndaw yi suma su ma ngi def sama poste ni euh, xalé bu ak mat bu mak <laughs> euh ndap voici le résultat parce que train de les outsiders ont tous gagné la Tunisie a perdu devant la Gambie xawma mo tani et pour rappel, le Ghana ne va pas participer à cette canne. Mais c'est là. xam nga affaire yi dafa tuxu. Waay. Euh, équipe yi ndaw moo amatul. Mhm. Ghana ñoo équipe Ghana na qualification CAN ba mu jeex amul victoire. ñu gis Ghana euh, dafay manquer à l'appel. Mhm. mais ñu gis ay surprise yoo xamante ni ay mhm. Botswana le ay Tanzanie. ay ay ay Bénin. commencé waat juddu Togo. ñi ngi ñi ñi ñi Maroc ni nous sommes la meilleure équipe d'Afrique mm-hmm. donc nek lo xamante amana psychologiquement da fay poser problème donc mm-hmm. il faut quelque chose il faut quelque chose de solide nga xamni mm-hmm. kat compétition bi nga jëm 50 50 lay donne parce que le Sénégal euh, du dem comme favori si Kane bi. bien vrai que il va il fera partie des favoris. mais ne sera pas le favori. parce que jamono ji la Côte d'Ivoire est devant. ñu ngi un niveau bu extraordinaire. Nigeria, ba légui ni des na mais ils ont une équipe bo xamanteni yakarna équipe bu baax la bien vrai que seen deux derniers matchs match nul lañ ci am ak une défaite hier mhm. mais ñu gis ni tamit les pays du Maghreb moy le mhm. Maroc la Tunisie l'Égypte mhm. affiché nañ euh, tournoi parcours bo xamanteni ci qualification yi bu extraordinaire ki daal laa xamni mom moom parcours am ça à désirer bien vrai que Tunisie Tunisie mom mo jël deuxième mais Maroc Maroc ils ont marqué plus de 30 buts 6 matchs 6 victoires. donc mm. nekk une équipe qui xamante ni équipe qui ñu jar a xel surtout que ça sera le pays hôte de la de la CAN. Mm-hmm. donc une équipe qui xamante ni tamit le mm-hmm. potentiel moo fa ne boo cité ay Hakimi ay Brahim Diaz. Mm-hmm. ils ont des attaquants yoo xamante ils sont virevoltants et des attaquants yoo xamante chaque match dañuy dugal. Maroc moo nekk équipe boo xamante ni il est toujours à l'aise, que ce soit à domicile et à l'extérieur. Et même avec euh, des équipes d'Europe aussi, euh, faut le dire, euh, Maroc. Mhm. Donc, est sans Mon question est de poser, mhm. moi, quand Maroc, mhm. Mais si non surprise mais euh, ñu gis ni tamit Maroc na mën coupe d'Afrique mhm. des années ni Maroc dépense pense dans les 1900 le cent la euh, coupe d'Afrique maa ngi gis mhm. benn waay di tooñ léegi sax naan mhm. Maroc bi mu jëlee bi mu gëjee jël kaan boobu on sifflait avec les mains on sifflait avec les mains comme <laughs> ça veut dire namm na donc c'est l'opportunité l'occasion mi ngi se se présente bientôt euh, Maroc fas dalal li nga xam ne moom mooy ba infrastructure ça fait partie waxuma Afrique mais léegi dafay concurrencer les les les les européens parce que Maroc bo xoolee stade bi nga xamni moy 2030 coupe du monde mhm. parce que Maroc Espagne ñoko wara a abriter mhm. mais stade bi ñi wajal préparé mhm. mais envier wul ben état d'afrique am état d'europe yu beuri yo xamanteni ni xoolu leen mhm. kon donc aspect infrastructure dañ ko mhm. respecter nek kan euh, bo xamanteni ni El Hadj Diouf waxoon na ni mom kan ni mu jot participer yëpp en tant que joueur wala en tant que staff dirigeant ou tout kan Côte d'Ivoire moo si gëna réussir ndax c'était la seule kan bo xamanteni ni ñëpp équipe yëpp amnañ nañ seen stade bopp donc 11 bi euh, mu ngi non daal di nay euh, nga mu nek non nga daal ko ñu ko mën ko am euh, déjà, euh, c'est Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly, Abou Diallo, euh, El Haj Malik Diouf, Crépin Diata, Idrissa Gan, Gueye, Habib Djara, Pape Matar Sar, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Cherif Ndiaye, Yafad Abib. <laughs> sa Sarr <laughs> c'était une et pour remplacer, voilà les autres y a Sini, Moussa Ndiakhaté Abdoulaye Hessek, Fermouz Mendy Fatih Ismaël Sarr et Habib Diallo euh, ci euh, li nga xam ni euh, moom je le disais tantôt Habib Diarra titulaire et Ismaïla Sarr moom nekk ci li nga xam ne moo di ci ba banc des remplaçants Idrissa waaw xam nga su ma juumul mhm. Mhm. maa la koy wax léegi mhm. ni la bu match bi naree am enjeu rek ñaar yii la mooy le public parce que on doit les fidéliser wala lan Pape Thiaw xam na ni xam ni tay moy dernier match mhm. donc carte sur table lay jouer fay bëgg sortir lan ak ben sortie boire xamanteni bu remarquable bu final final la wax ni mom lay jouer d'ailleurs voilà mi ngi donc xama mhm. xama xama man mhm. lan la kay xolé manam moy entretien d'embauche la nek parce que dafa tek CVM di xaar té la meilleure façon pour ñu jël le moy lan nga présenter quelque chose lo mhm. xamanteni kat c'est est mhm. solide mhm. kon Pape Thiaw instant bi da fay présenter quelque chose lo xamanteni ne c'est parce que lii du tourneveur kan mo géewul Pape gay, kan mo ñew Pape matassa kan mo moo euh Moussa Niakhate kan mo ñew Abdou Diallo kan mo Nicolas Jackson kan mo ñew Serif Ndiaye excellent attaquant koo xamanteni da fa mériter won temps du jeu la seule seul tourneveu bi nga xam te ne d'accord naa ko mhm. moo nekk Serif Ndiaye mhm. kan moo ñëwaat Ismaïla Sarr moo génn parce que loolu mhm. c'était une évidence Habib Diarra ñëw Elimane Ndiaye ba léegi nii mi ngi koy accordé li nga xam ne moom mooy confiance parce que mi ngi jox quelques sensations bien vrai que rythme bi mu commencé match du ko jeexalee mais mi ngi wane loo xamante ni kat da ngay xam ne kii dafay imposer joueurs ñu football dafay imposer attaquants ñu match bi passé mhm. ak équipe bi amul différence tay mhm. man je pense que mhm. on pouvait reposer Kalidou Koulibaly on pouvait faire reposer Edouard Mendy au moins Cheikh Lo nga tek ko ci banc bi wala nga andi ko mu góolu donc man loolu laa gisoon euh, défenseur yi crépin diata am nga Abdou Aziz Ndiaye mais au moins nga djem ko tek donc man je pense que ni tay amoon nañ possibilité ñi nga xamanteni ils n'ont euh, amuñu temps de jeu. Mhm. depuis depuis début qualification campagne bi ba depuis qualification yi ba léegi waaw ñooñu mhm. c'était ay Pathé Ismaïla si c'est un bon joueur mais mhm. légui dañ ko commencé euh, faté mais c'est lolu aussi nekul né moy yaq rythme joueur yi déjà euh, da ngay am habitude de jouer à un moment donné ñu wala en équipe nationale.